bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu. ñu ngi nuyu bokk ñu teewlu yëpp si turu jëwriñu Cheikh Rafal ji toog di sëriñ am di Fall moom sëriñ Modou Mbenda. nu koy ñaanal yàlla sunu borom guddal aw fanam lool te wéral ay cëram te kattanal ko dooleel ko ba liggéey yi jóge si sëñ Touba jëm si si moom. waxtu mu ne mu koy jekku di ko jëf na ko sëriñ bi bëggee ah fas yéene jottali nag ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko ci Cheikh Modou Mountakha jëwriñam ja jëm si si maam Cheikh Ibrahima Fall muy moom mii nga xam ne moo toog di sëriñ Amdi Fall jaar si moo du Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu Cheikh Modou Mountakha sëriñ bi wax ni Cheikh Modou Mountakha day yable na fi moom dem ay ndaw si guddi xamal ko ne ko dafa bëggoon fii di jëmi marché Ocass muy mbedd moom yi nga xam ne moom la ñuy wax mbeddum ñaar fukki mètre ak juróom-ñett mbeddum vingt-huit mètres mu tàmbalee foofu yi ñuy wax station essence bi dem ba génn marché bi sëriñ bi da koo jox ndigalul mu leeral ko mooy lépp lu bokkut si vingt-huit mètres yi rek ñu jëlee ko fa lépp lu ne si kaw vingt-huit mètres yi loolee ñu jëlee ko fa ba mbedd mi leer naññ kenn ku ne xam na ni lii fi xew bëkk démb rek loolu wane na ni euh, foofu bërëb boobu fu war a yaatu la te it murid yi ko war a def loolu nag Cheikh Rafaal rek ko si doy moo tax mu liggéeyloo ko Cheikh Rafaal sëñ bi waxit ni bu nu bàyyi ko si liggéey boobu it bu àggee wax na ni ñu jëm si corniche bi muy corniche bu njëkk bi corniche bu njëkk bi dafa wax li dale si poste contrôle bii ñu wër ba Madiyaana wër ba Gédé wëri ko ba corniche Daara jorof dellusiwaat ba Ndaamaatu ba ba nuy egsiwaat poste contrôle sëriñ bi jot na ndigal ci Cheikh Modou Muntaxa lépp loo xam ne nii mu ngi si kaw yoon wi li wet ñaari wet yi nga xam ne ñoo séq tali bi lépp lu si nekk sëriñ Muntaxa jox na ndigal sëriñ Amdi Fall mu sëriñ Modou Mbenn di jëwriñu maam Seera Fall ngir foofaat ñu leeral ko ba mu leer nañ ñi kon nag ndigal jib na ndigal loo xam ne mi ngi bàyyi ko sëñ Touba ñëw si maam Cheikh Ibrahima Fall euh, jëm si murit yëpp nag képp koo xam ne kii rek yaa ngi jëfe képp koo xam ne ba nga sukkee di joxe sa bopp yaa waxoon si say kàddu ne loo ma digal dinaa ko def waaye loo ma tere dinaa ko bay ndigal nag ñëw na jóge si kam war a jóge muy sëñ Touba waaye jëm si kim war a jëm nag muy maam Cheikh Ibrahima Fall muy liggéey bu màgg liggéey bu kawe liggéey boo xam ne sëñ Touba rek lañ koy liggéeyal. waaye nag Cheikh Modou taxaa wax ni loolu day Cheikh Rafaal rek moo ko si doy kon nag nun nu xam ne Baye Fall yi fu nu mën a ne ndigal jib na jóge sëñ Touba ñëw te ndigal moom jëfe rek la noonu la ko sëriñ bi waxee. sëriñ bi wax ne Cheikh Modou taxaa jàppal na ko bis muy alti ajjuma ji nga xam ne moom la ñu jëm bu dellusee ba dellusiwaat maanaam bu nu màggalee màggalu Kazu Rajab ba bis bi dellusi incha allahu fas na yéene ànd ak mboolem njabootug Cheikh Rafaal ak képp ku nangu ndigal. ñu ànd jëfe ndigal loolu yi nga xam ne moo jóge mooy mooy ndigalu Cheikh Modou Mountakha mooy nu leeral bërëb yooyu yi nga xam ne moom la ñu tudd léegi muy jëmmi marché bi mbedd mi nga xam ne moo jógee vingt huit dem ba traversé marché bi ba jàll ak mbedd yi nga xam ne yëpp nag ay mbedd yu yu yu si soqikoo la jëm gànnaar ak Saloum mbedd mu si nekk rek lu fa nekk te bukk sa loolee des koy dindi bu fekkee ni ña ko fa def dindi wuñ ko laataa mbooloo mi di agsi kon sëriñ bi di soññi ñam ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi muy njabootug sëñ tubaa gi ndax dëkk bi ku fi ne njabootug sëñ tubaa nga ñi fi ñëw ñëpp la sëñ Abdou Lahad waxoon rek ku xeluwut ñëw da nga xelu ñëw ñi fi nekk nag danoo xelu ñëw loolu nag ndimbal la loo xam ne eh, ëppalee nañ ko képp ku ko amut kon nag ndimbal loolu yi niñ si sant yàlla sunu borom mooy dundal ko dundal gi nag mooy nangu ndigal li sëriñ bi li sëriñ bi bëgg bu nu ko xamee ak bu nu ko xamut mooy si la sunu njariñ nekk tey ak ëllëg si la sunu defaru nekk tey ak ëllëg kon sëriñ bi dafa bëgg ku am foofa bërëb wala nga am fa ay ay loo xam ne ay ay ay ay jumtuwaay la wala nga am fa loo xam ne ay bagaas la yoo xam ne bëggoo mu yàqu euh, sëriñ baa ngi sàkku bala nu faa egsi ñu jëfe ndigalu Cheikh Modou xaa kenn ku ne la nga fa am nga dind ko ba mu leer nañ ba mu set wicc kenn ku ne nag xam na ni lay fay yoon la fa jaadu kenn ku ne xam na ko ku tege si kaw yoon wi xam nga ni yaa ngi si yoon wi ku jël lu ëpp si li nga war a jël xam nga ni jël nga lu ëpp ku karole wala nga def trottoir ba mu jéggi ba mu àgg sa tali ba xam nga ne jël loo moomut sëriñ bi nag sàkku na képp koo xam ne am nga fa cantine mbaa nga am fa magasin mbaa nga am fa place taabal mbaa leen lu mën a doon sëriñ baa ngi sàkku loolee balaa ajjuma jaww ji nga xam ne moom la ñu tudd nga jël ko ba mu jëlee ko fa ngir bu nu egsee fas nañ yéene jëfe ndigalu Cheikh Modou Mountakha Xaali muy leeral mbedd mi ba mu leer nañ ñi leeral it mbedd yi nga xam ne ñoo féete Saalum ak ak gànnaar muy muy muy voie latérale yi ñoom des na ko leeral ba nga xam ne marché bi daal egsi fi dina doon lu jàppandi si wet goo jóge rek ni nga xam ne noonu lañ ko noonu lañ ko saytoo woon sa njalbeen ga wet goo jógee da nga mën a tàbbi si biir marché bi te doo am benn gàllankoor su boobaa nag kenn ku ne dana daal di nat si am xelam lii nu sëriñ bi fàggul lan la nu jural njariñ li mu ju jural ak tawféex gi mu nu indil boobaa kenn du ko nettali kenn kenn ku ne yaa koy xamal sa bopp. jëfe ndigalu sëriñ bi si la suñu defaru ne si la suñu njariñ ne si la suñu texe ne si la suñu uh, wërsëg ak suñuy xéewal lépp si jëfe si ndigalu sëriñ Tuubaa rekk si la ne kon sëriñ bi mu ngi soññ ñëpp nag ñu delloo si waat seen xel si loolee xam ne jëfe ndigali sëriñ Tuubaa yi fi indi te moo nu fi bàyyi ndax sëñ Touba la ñu jaayanteel sunu yaakaari tey ak ëllëg dara génnu ci sëñ Touba sunu yëngut ak sunu dal sunu tey ak sunu ganaaw bakkan amuñu lenn lu ñu yaakaar loo du sëñ tubaa kon nag koo kii yaakaar nag moom moo santaane te waxtu wu ne li nu diggee moom mooy lu mu nu digal nu def ko waaye lu mu nu tere nu bàyyi ko kon ndigal li sëriñ baa ngi sàkku si mbooleem ku dib taalibe te nekk sa bërëb boobee nga nga nga nga nga am si te ju mat sëkk mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi bëggee suñ sa àggee ñun ñëpp nu àndandoo jëfe ndigalu sëriñ bi suñ noppee nag taal toog dëkk ko suñuy loxo mu ñaanal nu xam ne lépp lu mu def rek moo gën lu mu defut kon loolu ñëpp xam ko incha allahu lu weesu tey jii dees na tàmbali di ko yaatal yëgle bi ba képp koo xam ne kii am nga bërëb bu dee si biir marché bi la wala képp koo xam ne yaa ngi si kaw corniche bi li wër corniche bu njëkk bii te nga xam ne jël nga si loo xam ne bokkul ak la nga moom ah nga yëg ko ba kenn du ne yëguma ko woon su ko defee sëriñ bi nag la ko gënal mooy bala noo àgg sa bis boobee kenn ku ne la nga sa am te man koo dindi te jaarul si yoon nga dindi ko ba bu nu agsee du nu fa fekk lenn loo xam ne lu nuy gàllankoor la. sëñ baa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant Cheikh Modou Mountakha si ndigal lii nga xam ne moom la ko joxaan nag te xam ne ndigal dong moo nuy jariñ di ñaan yàlla nañ ci tàbbi ak jàmm te defe ko ni ko sëriñ bi bëggee ñun ñëpp ñu am taw feex kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.